que yóbbaale non du moins yóbbaale sa terme de référence parce que c'est bien organisé ñun yàgg nañ dem dialogue man depuis plus de plus des années et des années dañuy dialoguer sur le processus électoral par la commission cellulaire deuxièmement dafa am année électorale dañ jëm à la kulli ali dinañ dialoguer parce que processus bi calendrier bi génn na Mhm. calendrier bi il faut ñu discuter ko parce que d' abord avant ministre de chargé des élections cent quatre vingt cinq jours avant dafay woote pour ñu wax caution bi après caution bi dafa am leen loo xam ne war na ci waxtaan ban yan fiche ak ban mode lañuy la ñuy parrainé mhm. mais yooyu yëpp avant ñu si àgg dafa am ay manquement yoo xam ne dafa am si processus bi mooy dañoo jóge si des élections élection locale ak élection législative ah, acteurs yi waxtaanaguñu te élection présidentielle yi ñu jëm dafa am lu ko gàllankoor lu baree bari. léegi mën naa la poser benn question. s'il vous plaît waaw maanaam su fekkee da ngay dem dialogue. Hmm. nga dem yow li nga yaakaar ne moom la ñuy waxee kenn wax kenn waxu ko fa lan ngay def. non no wax la benn da ko woote mooy président bi. moom bu ko wootee. lenn a da ngay dem lu ñu nit ñi duñu duñu xaar il faut arrêter d'insulter les gens non non je vais vous dire quelque faut ngeen xam a deux de dialogue dafa am benn dialogue boo xam ne c'est sur le processus électoral le Pastef bii di wax tey day dem élection dina si dem parce que comment il faut que ñu xam fichier bi la il faut que ñu xam nan lay demee élection caution bi nan lay demee discuter si yenn pa dialogue boobu boo ne bañ naa yëpp dafa dal PDS PDS dafa ne woon dew ma ci benn ñu dem ban na tey dañuy commencé auditer fichier électoral mu bind gars yi dañ toog biir commission di reetaan PDS dañ ko rejeté mu ne day ñëwaat bokkaat ci évaluation yi gars yi rejeté leen ñu mujj ñoom dem ci télé yi sax di attaqué ne ñoom dañoo waroon bokk ci audit bi ak fichier bi loolu laa lay wax ma ne leen bu bu gars yi il faut que terme de référence yi ñëw yow boo bu leen yow boo ñëwee ne sa terme de référence ngay indi gars yi di débat yóbbu lan ngay demee. loolu la am na acteurs yi am na si ñoo xam ne xam na mais loolu proposition lay doon. de référence moom doo ko indi. terme de référence ñoom ñoo ko proposé. beneen moo moo xam nga dama ne dama ne tey aujourd'hui au Sénégal sànq dégg naa ko. dégg naa ko sànq lu bari. Bart Bart Bart c'est désolant et tamit c'est dommage. pour la yeewi askan bi man j'étais membre de la non dinañ fa ñëw. nañu des ci kii bi ñoo ngi ñëw. non dama ne xam nga jaro moo la benn affaire gis nga Sénégal dafa am foo xam ne dañ fi toll. acteurs yi dañu war a waxtaan ñun dañ génne woon communiqué je suis membre actuellement de Yewwi Sénégal dañu génne communiqué ne il faut concertation am parce que dialogue bële bi ñu si génnee dafa am point yoo xam ne kenn acté gu ko te dafa tardé et tamit dañu waxtaan dafa am ay points yoo xam ne jotoon nañ ko bàyyi muy article L9 mm-hmm. ak article 30 ak tamit si article 80 dañ ko discuté woon bële passé mm-hmm. si gis nga moo indi opposant yi ni leen jàppe offense au chef de l'État ak yëpp ñu ne nan lañ koy méngalee ak jamono mu am ay point yoo xam ne déggoowuñ ci même li muy wax sànq maa ngi ko dégg mu naan élection au supra universel maire ñaari kii yéen yéen a ko pro ñun dañ ne woon nit ku ñu investir waru ñekk tedd liste ñaari liste ngeen bañ mhm. ñaareel bi ñu ne leen élection au maire ak adjoint ñoo war a ànd. ngeen bañ yan guy yi wala ñoom ñii mouvement présidentiel mooy mooy majorité présidentielle. ñoo bañ ñoom benn benn benn. mais yéen da ngeen ëpp expérience. ñun ñuy gérer réew. jël ngeen jël bu dee expérience si dialogue ñu ne ko <laughs> foofu parce que code consensuel Kéba mbay mm-hmm. article article 3 la ak article 4 moom la après bi Abdoulaye ñu waxtaan si mu nekk article 30 ak 31 moom la moom la Macky Sall bi ñu si waxtaanee ba yaakaar dina ko changé mu ñëw indi ko article L29 ak 30 njuuñ d'accord yokkaat ko article nga demaat article 57 gisaat nga ñëw article 100 yokkaat kii